gars yi defoon nañ ko daaw fekkee déwén barkeb cheikhul xadiimi nee naa leen yoonu tubaax Touba xaadim Rasul amul tànki ginnaaw tànki kanam réclame fi ma ne nii nag mooy nagu Serigne Saliou Thioune gël tàppe ci biir nag yi maanaam damaa dem ba nga xam ne ay nag dañu maa miin ndax ñoom nag yi duñu ma wékk duñu ma laal duñu ma mëkk duñu ma buux duñu ma kobos duñu ma def dara ci biir nag yi yëpp laay dugg nag yaa ngi jug ndax dégg nañ sama baat dañu ko xàmmee nag fu nga ndam barki borom Touba barki alxuraanul karim sama xol sedd na te nag yi ku leen gis xam ne du nagu quatre cent mille du nagu trois cent cinquante mille benn dëkk desatul nag ndax yow Serigne Saliou Thioune bég naa Mor Oussar de ba may woo naan ma ñu ngi nii di jënd ji nag yi dama ne ko ah Oussar dem leen te ñëw ak jàmm waaye lii ma gis ah Serigne Saliou Thioune kël tàppe ndam amati na barki borom Touba Seydina Thioune loo leen dund doyul man Ketchup kontaan naa ci yéen bég naa amati àndam man lii day sëriñ Béthio Xaadimu Rasuul day bég na ci barke sëriñ Bamba sëriñ Béthio sëriñ Saaliwu bég na ci Seydina Cuun bég na ci Midaadi Cuun bég na ci Moor Usaar bég na ci man mii bég naa ci barke Seexul Xadim yàlla na sa jàmm yàgg gaay bu subaa dinaa leen gën a won lépp ngeen gis xam ne fii preuve fi am du ay caaxaan barki borom tubaa màggalu jàmm ren di ngeen gis lu leen mës a gis ci adduna ñu màggal si wul laa yërëm ñi nga xam ne dañoo waajoon di wàjjarte ñëw leen te xam ne màggalu sëriñ tubaa gi kanam rek la jëm bii mooy quatrième côté bi premier côté ngi ni nag yi juugu fi deuxième côté baa ngi ne nag yi juugu fa troisième côté baa ngi ci ginnaaw garab gi nag yi juugu waat fa ndax dañ koo def ay ay côté parce que nag yee bari a gilleem yi macha allah barki borom tubaa gilleem maa ngi ko gëj a gis ca sama ngénte waaw nag ya nag yi nag yi nag yi jàbbal nañu nag yi bari na nag yi tuur na macha allah Serigne Saliou Thioune gël tàppe yàlla na yàlla guddal sa fan lii day Serigne bi Serigne Bamba Xaadim Rasul Serigne Saliou gël tàppe amati nga ndam nag yaa ngi nii di dox di dem nag yi man lañu dégg di ma gunga may doxaale mu rafet nag yi bari na macha ku ne yoonu Serigne Touba gi neexul daa fekk da nga cee bokkul waaye ku ci ne dëggu ku ci ne gëfee ndigal ku ci ne gëm sa bopp ku ci ne xam ni Serigne Touba rek kay dëggu chaque année di nga def lu kawe sa njort daaw de ah li ñu jël ci ay nag ren ji yokku na barke Serigne Bamba Serigne. ni may doxee di dugg ci nag yi. damay dox di gisaale ay giléem giléem yaa ngi nee ci biir nag yi doon ndey ak baay ñoom ak nag yi ndax lépp benn borom la am muy Serigne Saliou Gueule Tapée mi ko jënd teg ko fii ci màggalub Serigne Touba gi nii la baayam doon def waaye nag jël na relève bi ñëw na jàbbal na ko lépp ñëw na bari na baas baa ngi ne maa ngi ñëw ci baas bi ndax baas bii ma gis ren baas bii ma jàkkaar lool baas bii may gis barkab sëriñ fu mu dégg sama baat rek daf koy xàmmee ndax sëriñ saali wu Gueule Tapée waa kër Cheikh Béthio yi amati nañu ndam barkab Serigne Saliou Mbacké laa leen wax màggalu Serigne tubaa gii waa kër Cheikh Béthio yi amati nañ ci ndam nag yi bari na nag yaa ngi nii biir jannatul maxwa lépp dugg na lu ne fàng nag kenn du ko jeex nëbbatuwuñu te xam nañ ni jëfee ndigal rek am njëriñ nagu Serigne Touba Xaadimu Rasul yaa ngi nii yi nga xam ne Serigne Saliou Gueule Tapée moo ko fàggu def ko ci màggalu Xaadimu Rasul gii nag yaa ngi nii maa ngi